Ilaaji Amadou Sidibé dafay faj mboolem jafe-jafe bu ngeen am ci wàllu bët moo xam muy cataracte début ay bët yu myope bët yu lëndëm wala boog ay bët yu xasan Ilaaji Amadou Sidibé dafay faj hémorroïde moo xam muy bu nëbbu bi wala boog bu feeñ mandargaay hémorroïde bu nëbbu nag borom dafay seere nga yëg sa biir bi di jooy sa biir bi di yuuxu fu mu toll mbaa ngay ballonné wala sax nga yëg ni sa biir bi daa diis gan dem ba jàpp sa ndigg li di ko metti it bu feeñ nag borom dafay seere lu yàgg booy dem douche muy génn mu am picc wala boog muy génnee bul ci ginnaaw mbokk yi bu ngeen sentiree benn ci yooyu le mandarga daw leen gaaw ngeen seeti amadu Amadou bi maa la ko wax bu jëflantee ak yow ba noppi. jàngoro bi ma àndal ñu naan ko hémorroïde ndoxum siti waaw yaram bi moom day dagg rek. da ngay waaw da ngay wokkatu rek. ma xool de moom tagul weer na ceng weer na ceng. sa teen bi est-ce que yow ci àddina moom moo la faj. wallaahi billaahi wallaahi garab boobu kon ay garabam jar na dem uti ah. te kii moom mujj faj. damaa yore woon ndoxu siti ak hémorroïde dafa ñuuloon kukk sama tànk yi dafa amoon lu lakk sax lakk spécial dafa meloon ni dafa lakk mais vraiment bi mu ñëwee ci Amadou Sidibé garab yi ma defal jox ma ba léegi nii. amul lenn loo xamante ni ma koy sama yaram dangaa am ndoxum siti sa yaram di tàng la def yaram bu diis yaram buy metti mbaa muy xasan boo ko wokkee mu nàcc mbaa sax nga yëg sa suufu tànk yi di tàng jër wala nga sentir ni sa bopp karaw yaa ngay ruus sa karaw di dagg maa la ko wax El Hadji Amadou Sidibé daf koy faj ci deux semaines dong dafay faj góor gu tëlee nga néew kàttan ci wàllu sëy booy sëy di gaaw a yegg bu fekkente ni dangaa am yëg-yëgu ni li nga yor dafa nooy ba booy sëy dafay faral di wàcc El Hadji Amadou Sidibé daf la koy fajal ba mu wow koŋ daal di def koddu bu ko defee nga daa di mën di sëy sëy wu mucc ayib mbokk yi El Hadji Amadou ma nga ca jàmmalaay 3 ca tali bu nekk ca ginnaaw armée lu yoof ya janoo ak parking ba ñuy raxasee oto fa jigéen ñi di fóote maa la ko wax foofee la El Hadji Amadou nekk wala ngeen jokkoo ak moom ci numéro téléphone yi woote leen ci 77 226 22 22 booba jàlla jël xar ya aj prix boobu trois cent cinquante mille loolu jaadu na wala jaadu. la koy jaay xar yi trois cent cinquante mille. lay jaay benn xar. benn xar déedéet waxuma waxuma gerte gi de. Ah, benn xar trois cent cinquante quatre pieds deux cornes. moom la jaay trois cent cinquante mille. dégg nga. ma yëkkati sama xaas bi tal na ko duut na ko téel. waaw dégg nga. subaak jàmm ah ma ni ko bu bu subaak jàmm ci kàttanu yàlla ah mbay mbay Diop dina ma dina ma jox xaas bi. xam nga lu ma ci tegal. Hmm. saaga la ma ci tegal. ndax lan dama koo xam ba pare ne ma génnal dëkk bi ne ma yow chef de village ak ku waa dëkk bi yëpp. ku bëgg xar da ngay am 350 boo ko amul doo am xar ci dëkk bi wul na. moom moom ah, boo ko boo ko jaa nga baal ma kii dafay raay raay wax ji. Ah. nga baal ma de yow da ngaa ñàkk fayda. parce que pël bi waroo ko mu nekk ci dëkk bi di ko def li ko neex. ay xaram ba mu ngande léegi ku ñëw di jënd xar mu naan la foo dëkk. waaw xam nga ñun fii dëkku teraanga la. wa waaw ñun ku ñëw ñu yaatal la moom moo war a nekk nit si am xel. Eh, moom nekkul ni de. waaw daa xeeb waa dëkk bi. dafa xeeb waa dëkk bi keneen ku ñëw fi di jënd ku dëkk si dëkk bi. waaw du la jaay da lay wax prix bu cher. boo jógee ci biti dëkk bi nag boo ñëwee mu jaay la. pour lan loolu. loolu yëfu imbécile pour lan ah mu ngoog mu ngoog. ah du yoon. ah du yoon du yoon. dama lan moo lu yoon. Ah, xaw dafa cher. ah yenn saa yi sax dafa ànd ak ndax poli bi ah xaw ma xawatu daa métti. xam nga tonton bu nga xaymaa xuur xar rek temps day jar ba vingt nga yow lan mooy sa problème. Hmm? baal bu nit ñi ci nga génn. nga gaam la man xuur xaratul. waaw man xoolal eh. baa ba ma réglé problème ok trois cent cinquante mille lay jaayee benn xar damaa bëgg na sa sëq dënn gii nga jaay ci dëkk bi. waaw pël bi nga ko war a wan nag. non man sama sëq dënn. waaw ak sama furaas dënn. loolu du question dama koy wan waa dëkk waaw waaw loolu am na dafa def wàcc yoon ma teg la ci yoon. loolu am na comme moom moo wàcc yoon. loolu am na dóog leen. da nga teg Ah, fekkente li nga wax dëgg la yàgg nga ko war a def. te loolu la nga wax te mën nga ko. bu ma beebee na nga ko gérer. moom beebee. bu ma beebee ma régler problème bu ndaw te ñëw. ah yow nan def fee ba ba ba nu. yow say moom lépp naa alaikum salam salaam ba mana, tan. dam tan kay. waaw kay. Tampere. waaw. mi ngi nii chef de village. lu amul hmm. jël sama xaalis bu weex tàll teg ci taabal ji. tegal nga ma lépp dégg nga tegal yi nekk sama seede. xam naa bu ñeneen ñoon waa dëkk bi yëpp nag yaa fi nekkal. xar macha allah léegi nag nun lan lañ fi jëriñ ci dëkk bi ak yow lan ngay jëriñ ci dëkk bi mënunoo am xar ndax ay prix yu dëgg la mu ko teg ci réew vraiment réew ma dof dong la ko teg du leneen waaw vraiment imbécile yow yow yaay kan ak yow fan nga toj ak yow fan lan mooy nday ak baayam ba ñuy dëkk ci dëkk bi soxla nga ne doo leen jaay dama gis ne yow man daa man ma gis ne man daa dang ñoo xeeb daal yow waaw parce que xeeb ñu weesuwul bu ñu ñëwee war a jënd nga aj prix bu ñu neen ñëwee nga wanteer leen ñu dem day dakk bu ñu neexoon élevé comme yow ndax am nañ espace te fii yëpp sama maamaka moom bu ñu la yaatalee nag may la dara mayal dara dëgg la ndax dégg nga ma war na lu waay am am xar vraiment war na lu waay am am xar vraiment ah chef de village bu ngeen jógee di yokk affaire événement ngeen di bañ mi ngi nii nag moom mii Fi amul kenn ku fi bay nawet. waaw te do do do sak ci la nga bay. andi jox ko pul bu rafet. man dañ ko yaatal ndax mom ndax mom ndax dal dafa yello ëllëg. ñun ñoko ko yaatal. kay ma ngo comme yaatal nañ ko nak da nga wara a yaatal ya waron nga heure bi war na fek yow nga xol xar mi gëna bax ne bi chef de village la koy jox. vraiment. bu bu nu kii par nga nga ray man yi ngeen di wax ni yépp yeen ngi melni ay yam wé wé wé wé wé yeen li ngeen di wax man taxawul samay nopp. yam kay. la essay dégg yéen yow chef de village boo ñëwee taxaw naa nit ñi ay dooméra affaire imbi yéen ay imbécile ngeen. yow yaay ndax yéen imbécile. yéen xam ngeen seeni xar. yaay imbécile yéen ay xar yu yéen ay xalu sara ñaar ngeen war waaye xam nga ne moddu xar yi seen xar amu fi. da ah, ah, ngeen ñëw yéen yéen nit ku ne ak yi pour nit ñi la te ñun vraiment waaw xar yi waaw mais njëgu xar. njëgu xar na Sénégal toll na foo xam ne nit ki war na lu waaye am am xar. Eh, eh, eh. bayil kuur kar yow la la su kuur kuur kar la la wa da nga bo la ma sa la su kuur baay de loolu wax ak baayam man atti mu ko sama yoon nekku ci gis nga chef de village gis nga yeen yeen waaw yeen ñan yeen yeen ñan nguur sénégal mu ngi leen di bëgg nax kan lay nax nguur gi mënu leen wax rek kar day yomb ngeen ñëw di kool kar yoo xam ne amoo leen pireem amoo leen gis nga léegi nag man mbir mu may bëgg so gën eh gerte booba gelle fii la am gelle. waay duuru naa eh, ge. Eh. chef de village xoolal xoolal man ju chef de village gelle leen la am génn ba man du ma tànn. Sërëbila baaxul. Sërëbila baaxul. Yoro ma la man du ma tapé de. Yoro ma la te xool amaguma xaar. yaa ngi may gaañ amaguma xaar may gaañ. ma wàññi ko nii. waaw toogal. toogal ni di nga am xaar bàyyi toogal ba pare. ah bàyyi toogal toogal. amaguma xar te war naa am dinaa la jox xar bali bali bi ku ko waxaale. demal dinaa la jox xar. merci. ndir boo ko lekkee xanaa sa mbakk yi day dal boo ko lekkee day mel ni yàpp lay set ci sa alaaji amadou sidibe kii mooy faj gaay yi kii moo mën gaay yi kii mooy jàppale jaamu yàlla yi moo ngi fii ci jàmmalaay 3 nord foire ci ginnaaw miiru almeeri yoof yu mag yi fi nga xam ne fa la séeréer si di fóote foofu taxaw boo laajte alaaji amadou sidibe ñu wan la ko gaaw leen ci nu gën a ngeen jël ay numéro ak adresse am ci écran bi xoola garabam bi nga xam ne faju général la ñu ko tuddee lépp loo xam ne da nga ko yëg sa yaram lan la nga baxal nga naan nga xool pour nga def une semaine wala trois semaines nga faju xam ne da ngeen a yor hémorroïde nëbbu ci biiru doomu gaaw a rees sa biir ngelaw a mu dem ba indi la jëme bu rek indi bi nga dafa dafa ci yi nga rek dafay li nga hémorroïde bu ndox la sunguf te lépp dafa naturel per yi nga da indi lépp dafa jëm ci hémorroïde bu bi rek bi nga dafa def ci c'est fini gis hémorroïde ba day de taxaw leen nga dañoo ci Amadou Sidibé Amadou Sidibé kenn du yow ci mim te yow ñu dañ leen ñëwaat. yoroon naa hémorroïde yor ndox mi siti ak puissance ko quoi. fu ne dugg naa ko moom pour pour pour pour pour fajoo. bi ma ñëwee si Sidibé foofu la sama jàngoro bi affaire yëpp réglé woo fajoo. bi ma àndal ñu naan ko hémorroïde ndoxum siti waaw yaram bi moom day dagg rek. da ngay waaw da wokkatu rek. de moom ceng weer ceng. damaa yore woon ndoxu siti ak hémorroïde dafa ñuuloon kukk sama tànk yi dafa amoon lu lakk sax lakk spécial dafa meloon ni dafa lakk mais vraiment bi mu ñëwee ci amadou sidibé garab yi ma defal jox ma ba léegi nii amul lenn loo xamante ni ma koy sama yaram sama tànk daal li nekkoon mooy hémorroïde ak ndoxum siti siti bi nu meloon ci man du ma neloo guddi sama tànk yi day tàng jër du du dis gan nag teg ci mm-hmm. waaw di xasan teg ci su ma toogee nii sama lupp yi pooj yi nii day xasan xasan xasan bu metti hémorroïde bi des fois damay dem toilette duma ma mën a dem toilette. waaw kon ban genre hémorroïde nga amoon. hémorroïde buy nëbbu bi la yaakaar naa. bu nëbbu bi mooy bi lay seere. waaw bi may seere mu ngoog voilà. ndax bi nga ñëwee ci moom faj na ko. waaw bi mu ñëwee ci man faj na ma ko tubaar fa kàlla gis naa wér bu baax a baax a baax a baax ci moom. baax a xanaa ku la déggal day dana ñëw. ah en tout cas de ku dégg lii bee nga taw ñëw si gaaw. macha allah waaw tubaarfakalla mooy borom jaam de. kenn du moom kenn du moom walaay leen ci nu mu gën a gaawee ngeen jël ay numéro ak adresse am ci écran bi ndax kii kat ñàkk koo xam warul benn yoon bu dee da ngaa yor ndoxum siti ndeyi jàngoro yi mi ngi noonu garab yu bees yaa ngi nii moom la indi bouteille yii ñooy faj li nga xam ne moom mooy ndoxum siti xoola genre pomade yi nga xam ne bu fekkee ne ndoxum siti bi daf la jàpp say loxo say wee di gaaw a yàqu sa diggante loxo yi di def ay tërgën di génn ay picc ngay wokkatu foo mën a toll bu dee jigéen la sa na koo téye du mën a am doom bu dee góor la mu yàq man ni woom bu dee da ngeen yor impuissance sexuelle ah! ah alaaji amadou sidibé kenn du moom ci impuissance sexuelle maa la ko wax góor gu tële góor gu ma néewum néew góor gu néew kattan jàmbaar jaa ngi nii moo indi garab yu bees yaa ngi nii te lépp naturel la gàncax ak reen xoola garab yi jinnay fajkat yaa ngi nii de yemul foofu ndax day faj bépp feebar bu jëm ci wàllum bët ba ci cataracte bàyyiwu ko si cinq minutes la koy faj rawatina bu ngeen amee ulcère wala estomac ñëw leen ci moom mu jox leen bul boo mu gën a gaawee ngeen jël ay numéro am ak ci écran mën a ko neexal ñëw cabinet mi ngi noonu saa yoo ñëwee rek sa xel dal ndax ay garabam ñooy jaay boppam kenn du moom bu leen ko tardé nu mbelaan ma nu mbé nu mbelaan ma nu mbé la mbé nu mbelaan lu tax tabaski ak ma nu mbé